Assalamualaikum, man. This is your boy, Advocate, aka Self-Made Man, aka The Sniper Shit, aka Nobody Can Stop Me, Yeah, avocat mu ngi juddoo Thiès maa ngi Thiès avocat moo gagné flow up avocat moo ñëwaat pour génn leen benn projet incha allahu rabi bii mooy vol 1 bi self made man vol 1 incha allah am na yeneen projet yu ci toppaat. kale nañ ay date incha allah pour Thiès pour Sénégal bi yëpp lépp nañ ko kar comme info yi na ngeen ko kar ci na ngeen ko kar Facebook Instagram incha allahu rabi Twitter incha allah dinañ ko gën a yaatal pour ngeen pour ngeen jot bu baax yeah. man duma sàcc duma fen mënuma nekk donc fukku ne war bay sa waar amoo fa jot dunguru gem bu rafet bi ci cuir ci pañe bi laa ko dënk jaxwaa jaxwaa micro ma faj sama jàngoro yes I'm the rapper I'm the rapper te may papay rapper yëpp kon ku mu neex ñu def test ADN yax ak dret sama yàpp man dama juddu ci wëy yu teel a jug dox ci avocat ah, avocat kon ku lay laaj lu bandi di ndirool ne ko ni avocat ah man maay Papa Laay Wàdd ngeen ay Karim Idi Macky ay Farba Masali Dansokho Diagne Fada Madické duma leen jàngal tibb sekkoon di ci lekk ngeen may jiite wallahi naa suur këll tëdd ma mës a agité ni drapeau ci sky bi flotté train baa ci raay bi maa ngi piloté man damay small any time du sëlmal gisuma dara lu ma filipe ni clap clap deux doigts frotté te kaasu ndox bi maa ngi siroté man zappe naa seetaan seeni seen excité wul ni yu màgget yuy def striptease da ngeen a muuba mel ni amul leen kuuy seen ngem bi yàgg na géttu mbote ba léegi amul leen kuy boo xamul bur saay na bur ñaf na uy xamul leen kuy ko lande nang nangal ba mel ne toqus ngalam xewut daf la ku ne préptise yeah ak gars yi man